salaamaaleykum maa ngi remercier ñëpp di commencer d'abord par remercier suma camarades yi teew fii ñoom ñëpp di remercier sénégalais yi ci li dal ci suñu kaw njabootu Seck ak njabootu géy njabootu juuf ñu ngi leen di sant bu baax. su ma teewaay fii nag c'est parce que dama am lu ma metti loolu ma metti ma yàgg ko yuuxu yàgg ci wax yàgg di ci woote ay conférence de presse tey jii li suma benn copain di wax naan yàlla du nit non yàlla du nit est-ce que madame Aminata Touré son excellence mën nañ ko jàngal mbirum parrainage déedéet ma gis le représentant du premier ministre Boun Abdallah Dionne mu toog ci suñu biir mais est-ce que kooku mën nañu ko jàngal mbirum parrainage déedéet ku fi jóge alinguy Ngouille buñ dee laaj bàyyu parrainage mooy bàyyi bi kooku mën nañu ko jàngal mbirum parrainage non gars yàlla du nit li des il faut pas ñuy caaxaan tànk day tàllalu mbaamu banku ce que le conseil constitutionnel a décidé génne seeni candidat publier seen liste ñun ñuy toog fii du kenn ku ci ànd donte am na ci ay candidats yoo xam ne ñoom bokk nañu ci ñu ñu wax ne ay candidats validé lañu mais ñoom ñiy toog ànd ak ñun ay gor lañ parce que ñoom mënoon nañu def ni ñenn ñi rocciku bañ a bokk ak ñun xeex bi mais ñun xeex bi mën nañ koo xeexal suñu bopp ku ñu ci fekk si ñu ànd ak yow parce que nag waa ji nekk ci roq bi yor conc bu diis bi bi boo ngeen xam ne yaram la yor yar bi ku nekk ak na mu lay dóore mais figurez-vous li conseil constitutionnel wax Cheikh docteur Cheikh Tidiane Gadio mu ngi koy wax léegi mais li ñu ko waxal man moom lañ ma waxal su ma su ma mandataire mu ngi nii depuis ñu commencé opération yi moom moo nekk seen interlocuteur direct mu ñëw def recours bi ñu ne ko non non du yow yaa ko war a def monsieur le premier ministre monsieur le ministre Aly Ngouille Ndiaye wax na ko considerant 35 bi liir leen ko dañ ne mbirum fiche yi nit ñi joxe est-ce que bu ngeen laajee excellence mimiture ndax dina leen wax ndax ñoom conseil constitutionnel mus nañu ubbi fiche yooyu xool ko bu ñu ko xooloon Saint-Louis danañ ko ko delloo ki la njublan ci fichier bi mu yor yàgg naa wax ne du benn fichier du ñaari fichier tey jii loolu biir na ne du benn fichier du ñaari fichier lañuy ñuy liggéey boobu li graaw mooy fichier bi dafa nekk ci mbedd mi am ay candidat ci candidat yu jàll yu comp ca fichier boobu parce que moo tax ñu jàll oui tout à nañu dem ñu woo procureur walla ñu activer la police ñu ñu dem xool parrainage yëpp ñu tibb ci parrainage yi woo nit ñi laaj leen ndax diw nga pare parrainé non mais récemment au niveau de yëmbal commissariat bu yëmbal mais yéen yëg ngeen ci journaux yi ne am nañu ñu jàpp ci mbirum parrainage am nañu ñu jàpp ci mbirum fichier électoral mais vous autres journalistes est-ce que vous vous êtes demandé fu loolu mujje fu mu mujje mujjul fenn fichier boobu moo nekk ci mbedd mi am ñu ci tibb am ñu am sañ-sañu bañ ciy tibb parce que njublan nekkul seenu mbir ñu am conseil constitutionnel boo xam ne dañu ko instrumentaliser parce que li ñu ci bëgg mooy fexe ba yoonal yaatal kenn koo xam ne sénégalais yu suur nañu ko bu ñu kenn waxloo it lu ñu waxul ñun dañu ne élection yii ñu jëm ñun dañ ci war a bokk ñi toog fii ku ci nekk biir na leen ne amul problème mu parrainage ñun ñu ne élection yooyu dañu ciy bokk te yoon bi ñu ci waree bokk nañu ko gëstu waxtaane ko yenn saa yi sax nga dégg ñenn ñi naan wuy dañuy woote report élection waxu leen dëkk on n'a jamais demandé ça en tout cas man Bougane waxuma loolu te ñiy toog fii it kenn waxu ci loolu soyons clairs fichier bu baax bi bu ñu ko génnee teg ko ci table bi très rapidement mën nañu régler problème bi parce que nag cin faqul bënul la fa newul jógu kenn deful loolu lu may Macky ak ñi mu àndal ak conseil constitutionnel bi nga xam ne biir na leen yéen ñépp ne organe la boo xam ne day promouvoir l'injustice Et quand la justice est au service de l'injustice, elle doit être combattue. golo gi golo gi mu ngi ci biir tool bi golo gaa ngi yàq tool bi fii kenn waxul ne nañu dem seeti nu ñu lijjantee pour bàyyi golo gi yàq tool bi ñun golo gi dañ koo bëgg génn ci tool bi et loolu encore une fois bu desul lu dul ñun ñii ñëpp ñu nekk benn say taxaw jàkkaarloo ak moom moom candidat am 11 du ko fekk ci urne yi parce que nag taxaw nañu pour jële fi Benno Bokk Yaakaar taxaw nañu jële fi candidat wu APR APR taxaw nañu pour jële fi matisal taxaw nañu jële fi système bi nga xam ne jàpp nañ ne moo nërmeel Sénégal moo indi ndóol ci Sénégal moo indi sàcc ñu promouvoir ko ci biir Sénégal sénégalais takk leen seen dikk bettuñu kenn jërëjëf. Euh, jërëjëf président Bougane nee na report ñun ñaanuñu report élection yi day am comme convenu fichier boo xam ne 93 candidats conseil constitutionnel vérifié na ko en une semaine du 44 spolier yi moo leen mën a empêcher suñu vérifier ko en 3 4 jërëjëf président Bougane sans plus tarder ñu bàyyi euh, parole bi à au professeur Mounirou Sy euh, représentant kii Boun Abdallah asalaamaaleykum wa rahmatullah euh, maa ngi nuyu ñi fi teew ñëpp di jiital sama kàddu ci jaale sunu mag di sunu kilifa ci turu Mahammed Boun Abdallah Dionne muy le président Abdoul Mbaye bi nga xamante ni yaayam dafa wàññeeku pour ki dem di jaale itam Bougane à travers lui toute la famille Seck et Diouf ci sunu jigéen bi fi jógee démb Euh, man sama intervention ci ñetti poñ laa koy tënk bu njëkk bi mooy un sentiment de solidarité par rapport ak li xew ci réew mi muy euh, sélection bi nga xamante ni dafa fallacieuse et ñu sukkandiku ci droit pour rendre lu fallacieux lu légal kon képp koo xamante ni institution yi ñor na la droit ñor la war nga taxaw ñaawlu loolu te ànd ak ñi koy ñaawlu ñu xeex ko loolu mooy justifier malgré le fait que sunu candidat ñu validé ko ñu ñëw di fustiger loolu deuxième point yi et les deux autres points portent sur le droit te li may wax nii ça prouve que le combat est très légitime dafa am lu bees lu xew ci procédure d'inscription bi c'est l'élément discriminant bu ñu dugal dans la loi pour wax ni le seul et unique élément discriminant c'est la date d'expiration or on a vu que le conseil a invalider, rejeter des parrainages qui ont respecté ce discriminant. Or, en droit, et je parle sous le contrôle de El Abdourahmane Diouf, que le droit constitutionnel instaure ce qu'on appelle une compétence d'attribution au Conseil constitutionnel. Le Conseil constitutionnel n'a pas une compétence générale. C'est-à-dire, comme dit Vedel, il ne peut lire ni entre les lignes, ni au-delà des lignes. Mais il de manière littérale ce que dit la loi. Et la loi dit c'est l'expiration, le, le délai d'expiration. Donc pourquoi chercher ailleurs ce que la loi ne dit pas Donc en soi, le Conseil constitutionnel viole même ses, propres, ses propres principes d'organisation et de fonctionnement. Et les Yorni, lors des séminaires de formation, je parle sous le contrôle des mandataires qui sont ici, on a eu deux séminaires de, formation par la DGE. Les agents de la DGE, en prenant la parole, ont interprété la loi en disant cela. deuxième élément de droit ñu bari duñ ci bàyyi xel am na ñu ko ébauché mais il faut mu nekk un élément bu ñuy taxaw pour rek rejeter sax tout man c'est mon point de vue le président Ousmane Sonko a été rejeté sur une base de non-existence de son nom dans les fichiers loolu la ñu wax ba tax na jox ñu ko fiche D'autres ont reçu des fiches, sont allés chercher des parrainages, déposer leur dossier, on leur a dit on vous rejette. Parce que vous-même, vous, vous n'êtes pas dans le fichier. Deux poids, deux mesures. Donc il y a un contrôle préalable qui devait être fait. Qui, defuñu ko rejeté nañ ko, defuñu bee validé nañ ko, à un moment donné, ça perturbe tout. Et dès qu'il y a le doute, on doit remettre tout à plat. et loolu bu ñu ko bàyyee mu jàll dañuy nësaxal le fondement de notre pays qui est la constitution la constitution boo xoolee dans sa dans ses inscriptions en matière de compétition électorale elle est inclusive le peuple sénégalais voudrait que képp ku mën a jëriñ Sénégal nga bokk bu joxee jotee ñu xool ci gën ñu jox ko c'est ce que dit la constitution mais j'ai l'impression que depuis quelque temps ce qui s'est passé aujourd'hui ici on a procédé à une sélection sélective et loolu tax ñu teew pour ànd ak yéen déplorer loolu di ñaan yàlla nag ñu am ñoom benn hauteur pour trouver la solution boo xamante ni peuple sénégalais da ciy gis boppam pour que ñu réconcilier waat suñu bopp ndax lii fi gannaaw ak li ci kanam ñi jàkkaarloo ñoo yem dañoo war a nekk benn xam ne lenn nañu intéressé le peuple sénégalais qui doit sortir fier de ce qui va se passer le 25 décembre le 25 février sinon vraiment image Sénégal dina ñaaw daañu ñu ŋàññaat ci yu bare bare te jaru ko le droit est torpillé la légitimité est torpillée et s'il y a légalité torpillée légitimité torpillée il y a plus d'État je vous remercie